maa ngi tudd Abi Mbaye dëkk Géejawaay Daaru Xan waaw daje daje tey bi nag tey jigéenu GFC bi may seen présidente tey maa leen dajale woon tey kenn ku ci nekk quartier bi nga nekk muy Géejawaay Daaru Xan marché bu bees ku ci nekk sa présidente dafa ñëw taxaw ñu bokk toog waxtaan tey ñu taxaw coalition tànn sa maire soo déggee coalition tànn sa maire nag parfois ñun jigéen ñi chaque jour dañuy utiliser képp ku fi falu tey ñun ñoo la fal rawatina banlieue bi ñun ñoo lay fal képp ku fi falu ñun banlieue bi ñun ñoo lay fal rawatina ñun jigéen ñi ñun la ñuy teg ci kaar yi ñun la ñuy jox 2000 francs ñun la ñuy utiliser bu ñu faloo fàtte nañu looloo tax nag ñu tey ñun jigéen ñi ñu takk suñu digg ba mu dëgër na loolu ñun ñoo koy xeex jële ko fi ànd suñu coordinateur nag muy maam Cheikh di ñuy jàppale côté bu nekk ci côté social ñun ci côté social rek la ñuy dox di jàppalante suñu biir ay jaaykatu jën a ngi ci ñuy liggéey ci mbalit mee ngi ci kenn jigéen bu ci nekk koor bu nga nekk rek yaa ngi ci biir mouvement moo tax tey ñu boole suñu doole nag pour tànnal suñu bopp suñu meer koo xam ne bu toogee ci maire bii buñ fa soxlaa dara tey bu ñu ñëwee fekk ko fa koo xam ni tey ñun bu ñu jooyee mu ñëw taxaw su mbënd mi ñëwee mu ñëw taxaw problème bu ñu am bu ñu fëggee rek gis suñu maire waaye da ngay gis maire boo xam ne du fi dëkk nan lay gañee day yor maletu xaalisam bu ñëwee xëpp ko population parce que tey boo ñëwee ci population boo xam ne tey xañ na seen doole bariwul nga ñëw yor sa maletu xaalis moo xam nga dëkk Grand moo xam nga dëkk HLM ñëw ku ci nekk 2000 francs nga jox ko wala nga jox ko 5000 francs wala saaku ceeb naxee ko ko la yow 5 nga fiy toog ci biir cinq ans yooyu borom kër yaa ngi souffrir xale yaa ngi fi dañuy jàng ba am seen diplôme mais mënuñu liggéey fenn kon tey maire bi lan la ñuy jariñ da ngay xëy suba rek gis ñu baas lu fi xew ñu ne ñoo am lu ñuy organiser fii kon léegi doomu waaye ñoom kon maire bi ñoom ban bénéfice lañ ci am moo tax tey nag doomu géejawaay ñoo yeew rawatina ñun jigéen ñi dootuñu nangu kenn duñu teg ci ay carte di ñu yóbbu kenn dootuñu utiliser képp koo xam ne yaa fii falu coalition fal sa maire moo lay fal nan la lay falee xool càmbar la ba xam ne yow doomu géejawaay nga ñaareel ba dañuy xam ne yow mi buñ la falee suñuy rongoñ di nga ko lu ñu jug jàpp ànd jàppale la lii daal moom moo waraloon tey ndaje bi tey nag defuñu ko nag mitin parce que bu doon mitin tey kaar yi da gis ñu ñëw mais dañoo def quartier bu ci nekk marché bu bees ñu jël fa président bi ak deux personnes ñu ñëw toog ñu pencoo waxtaan seet nan la ñuy def ba jàppale jigéen ñi ba ñu fexe ba géejewaay crise bi fi nekk mu jóge fi loolu daal moo taxoon tey woote bi tey loolu seen Racine tey gestion naka ngeen ñun Racine man dama naan xaw ko man loolu laay wax parce que ku dee dañ lay ber. parce que maire bi nga naan sa maire la mooy maire bi nga xam boo gëstoo gisul mais maire boo xam ne élection ba élection lay génn su ñëwee tàllal ñaari baaraam de ma dama naan nii ni jàll mooy maire Guédiawaye ñun man ñun racine xamuñu ko te ñun ñun ak maire maire bi nii lañ def kon tey maire boobu ñun soxlawuñ ko maire bi ñu soxla mooy maire bi nga xam ne heure bu ñu gestoo dañ koy gis suñu wet muy xam suñuy tawat di xam suñuy naqar ku feebar bu ñëw sees la ku dee la mu ñëw jaalis la mais maire boo xam yow doo ko gis ñun gisuñu ko xamuñu kon pour ñun du suñu maire kon suñu problème tey jii euh, tey Pape Cheikh tey bu bu nekkoon tey jii euh, euh, versé woon na tey tey caution tey ñun yaakaaroon nañ tey jii bu fekkoon tey jii yàlla jàppale woon nañu tey mu joxoon mu joxee millions yi ñuy laajte tey moom mu ñëw taxaw sant lëndëm ñun moom la ñuy fal mu toogal ñu fii ci maire bi mais nag ba tey nag loolu weesul ku ñu gis xam ne yow mi tey jii li ñu bëgg li ñu gis profit bi ñu gis ci Pape ak ni Pape Cheikh di doxalee tey bu la Pape Cheikh jàppalee tey nga toog ci maire bi ñun suñuy rongoñ fay ñu jàppale la mais du duñu jàppale koo xam ni nag heure bu ci nekk même même même kii bi la ñuy def ak la jàppalee ba nga falu fàtte nga ñu taal nga sa oto dem nga changé nga sa numéro man nga toog deux ans di woo maire doo ko jot te bu élection jotee nag dañuy wàcc comme ay tan élection ba élection ngay gis 4-4 yi génn man damay gis 4-4 yoo xam dama naan pour est que Sénégal am nañ 4-4 yu mel nii ci lan lañ ko pour di nax askan bi nax yi nag lañ sonn li ñu bëgg mooy ñu considéré ñu rawatina nag ñun jigéen ñi ñun jigéen ñi kenn dootuñu utiliser loolu moom jeex na fi jigéen ñëpp takk nañ seen ndig ba mu dëgër kenn dootuñu utiliser ñu def ci ay kaar di ñu yóbbu gauche à droite loolu moom jeex na dëgg yàlla waaw. suñu local bi am nañ fii local am na politiciens yi fii jaar di ñëw bu ñu ñëwee wax seen wax kenn ku ne da ñëw wax sa programme ñu lay dégg ku nekk jaar na fi boo ñëwee da ngay wax sa programme bés bu nga jëlee maire bi nii laa bëgg a doxe nii laa bëgg a doxe li ngay wax nag dinañ la dégg mais bu ñu demee onze onze candidats du onze lañu bu ñu demee 11 ñaar ñi rek ñooy dem ñaar ñi rek ñooy dem élection bi su boobaa ñu dinañ tànn suñu maire kan lañ war a teg fii ci kàttanu yàlla.